mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndax ñun ci rajo Rewmi FM tey nag ñu am ci mbégte bu yaatu rek di ci dalal Jaraaf Alassane Ndao nekk rek maire bu xel Xelkom Birane nekk ca diwaanu kaw euh, Kaolack ci arrondissement Mbadakhoune en tout cas monsieur le maire ñun am nañ mbégte lool dalal tey ci émission gox bi. Eh, merci beaucoup man maa gën a am mbégte euh, ñëw tey di tas yow. Euh, waxtaan li euh, nga xam ne nii euh, mooy actualité gox bi ak niveau national. Mhm. alors monsieur Diaraf Alassane Ndao yooyu yaay maire bu xel Xelkom Birane boo ñu doon defal genèse commune bi lan lay doon. waaw Xelkom Birame je suis le premier maire depuis réforme bi communalisation intégrale Xelkom c'est une jeune commune. Euh, nekk ci région de Kaolack département de Guinguinéo arrondissement Mbadakhoune tey boo nattee dëkk yi ku composé mu ngi ci fanweeri dëkk ak ñaar euh, toll ci dix neuf mille habitants euh, am vingt écoles élémentaires trois collèges d' enseignement moyen trois postes de santé. waaw loolu mooy xel Xelkom Biram nekk xel Xelkom Biram ak Kaolack boo génnee Kaolack di dem Gossas ku xam axe boobu. cinq kilomètres yaa ngi Xelkom in Xelkom Biram lan moo tax ñu ne xel Xelkom Biram xel Xelkom Biram boo gisee ñu def ko parce que bi ñu defee découpage en 2009 euh, Xelkom mu ngi bokkoon commune mba communauté rurale Mbadakhoune léegi ñu def ko commune ñu def ko communauté rurale donc ci la Xelkom njëkk a nekk communauté rurale maintenant pour distinguer koom jaaga bu Sëñ Saaliw ak xel koom en tant que communauté rurale nekk ci département Mbadakhoune yàlla def na man mii lañ woo boobu j'étais chef de parce que au passage j'ai été chef du village pendant 14 ans avant may nekk maire sampap papa moo nekkoon borom dëkk 38 ans bi mu fa jógee après ma nekk borom dëkk. donc ci lañ ma woo ne ma xel euh, Khelcom dañ koy ériger comme communauté rural mais foog ñu am luñ ko luñ ci teg pour mun a def euh, distinction pour bañ ko xel Khelcom Diaga mhm. donc ci lañ def Khelcom Biram parce que biiram du kenn lu mooy ki nga xam ne nii mooy jur sam pap bi nga xam ne mooy premier chef de village élu euh, au niveau de koom mooy Biram Ndaw ñu ko doon wax Biram yàlla nakke wala Biram Borom nag yi kon buñ la déggee jeunesse bi da ngeen ci am histoire bu am solo boo xam ni dafa am ci commune ba waaw histoire bu am solo parce que quand même euh, comme niñ ko waxee keroog am na benn télévision bu fi ñëwoon def benn reportage actuel chef de village bi euh, sama rakk la ñu koy wax Mamadou Leyti Ndour biñ koy laaj euh, ci lim njëkk a wax mooy xel ay ndaw ndaay ñoo ko sànc d'ailleurs donc kon buñ toogee ñu tuddee ko xel koom Biram Biram jur kii jur ndëkk nekk chef de village élu parce que bu njëkk euh, avant la réforme de 72 chef de canton yi ñoo daan jël kenn teg ko ci dëkk bi ne ko dénk naa la ko mais avec la réforme de douze man sama waajur bi nga xam ne mooy Sita Fandaw yal na yàlla suuf yàgg ak sàddi si kawam moom mooy première borom dëkk voilà ñu ko 38 ans bi mu demee après ñëw fal ma borom dëkk ma dirigé ko 14 ans avant may nekk premier maire la commune de Khelcom Birame loolu am na solo ci histoire pour ñi ñuy déglu itam mën a xam euh, commune bi bu baax a baax waaye monsieur le maire tey ci commune bi lan lañ mën a jàpp ni commune bi ci loolu la mën a sukkandiku maanaam ay ressources yi nga xam ne tey commune bi ci lay fas yéene di dox. waaw xam nga boo gisee communes yëpp presque au niveau Sénégal communes yi seen ressources ce sont des ressources limitées boo génnee fonds de concours yi ak fonds de dotation yi nga xam ne état yi mu ngi koy jox dans le cadre de la décentralisation. loolu presque ci la communes yi dundee am na yeneen communes yoo xam ne nag par exemple ba tey boo jëlee xel comme Biram bi njëkkee ñëw en 2014 amoon nañ fi amoon nañ amoon nañ carrière latérite amoon nañ carrière sable donc mun naa wax ne ci yooyu lañ sukkandiku vraiment pour mun a am di ressources additionnelles yokk ko ci li nga xam ne ni euh, état bi mu ngi koy verser à toutes les communes selon la taille des communes boole ci aussi nag li nga xam ne nii mooy li gën a am solo mooy la coopération internationale partenariat parce que je pense que souvent. yaa ngi wax euh, latérite bi foofu noonu. nan la demee ndaxam liggéey ba foofu noonu euh, askan bi wala maire bi sax mu ngi ciy gis boppam bu baax a baax. waaw xam nga boo gisee bu carré moom du dara lu mooy euh, fu ñuy exploiter latérite pour les grands travaux de route. Mhm. donc ay camions ñuy ñëw droit de sax la ñuy fay. dañuy fay mairie bi parce que boo xoolee li ci ëpp service des mines moo ëpp li muy fayeeku ci carrière yi parce que loolu sax man bokk na ci li nga xam ne nii ne naa la foog war nañ ko xoolaat parce que suuf si ci suuf si compétence transférable mu nekk ci commune bi carrière bi nekk ci commune bi bien que carrière bu ñu ko xasee ubbi dañ naan mairie bi moomatu ko état la mais dama jàpp ne euh, droit de stationnement yi camions yi fay c'est minime par rapport ak li nga xam ne nii service des mines mu ngi koy tiré comme ressource mm-hmm. alors que nous avons des yoo xam ne amuñu ressources yu bëri je pense que c'est l'inverse qui devait être fait ñoom ñu fay leen droit de stationnement ñun ñu ñu ñu mën a ñu fay ñu par par kibage quoi. je pense que bu baax. est-ce que def nga ci plaidoirie bi pour mbir mi mën a jëm kanam. waa loolu moom souvent fu ñu amee ay rencontre entre les maires souvent nu mu koy wax parce que aussi ce sont des choses yoo xam ne nii. war nañ ko mën a xoolaat quoi pour plus à mm-hmm. quoi. Mm. Euh, yaa ngi doon wax ci euh, beneen bi ci walla ñu ñëw si ressources yi internationales euh, ou bien partenariat yi mm-hmm. mais commune bi tey ci wàllum infrastructure tey mm-hmm. boo ñu ko doon xayma lan la fa am ak lan loo xam ne bu ko bu ko fa defee dana gën a mën a jëmmal commune bi. waaw li nga xam ne nii mooy commune Xelkom parce que tey ku dem Xelkom xamoon Xelkom 2009. ak Xelcom de 2014 à 2022 y a une nette différence. parce Là, que différence différence bi rek mooy tey boo demoon bëgg kër Xelcom une demi parcelle aujourd'hui à Xelcom ça coûte minimum un million cinq alors que y a de cela sept ans ci gannaaw. 30 sur 30, 900 mètres carrés, même à 10 000 francs, tu pouvais l'avoir. ça veut dire que donc il y a une nette amélioration par rapport au vécu quotidien de la population li nga xam ne nii euh, développé nañ ko fa mooy essayer de faire de structures euh, des projet structurants yoo xam ne bu ñëwee dina mun a générer ay ressources dina mun a générer ay emplois et loolu bi ñu ci njëkk a def ci commune koom Biram mooy bi nga xam ne nii bi ñuy délocaliser le centre formation des élèves maîtres bi nga xam ne mu ngi woon euh, département de Kaolack région de Kaolack waroon ko déplacer quand j'ai eu l'information j'ai utilisé un, euh, mon carnet d'adresse et un lobbying pour l'accueillir parce que dama xam ne centre boobu tey boo ko accueillir biir Khelcom dana nekk en plus dina am un impact social économique ci Khelcom et la on l'a fait vraiment de main de maître euh, on a convoqué le conseil municipal pour délibérer quatre hectares euh, ba nga xam ne nii moom la centre bi soxla woon centre boobu tey mu ngi abrité plus de tous les élèves maîtres yi nga xam ne nii ñoom lañu ñoom la ñuy formé tey xel comme biram lañ nekk ils sont plus de trois cent s'y ajoute l'université Sine Saloum mi nga xam ne mu ngi mbadaxoon ñu ngi ci travaux yi pareegul centre boobu mooy accueillir benn UFR euh, étudiants yi def environnement et développement durable ils sont quatre cent ñoom aussi ñu ngi xel comme donc boo ko xoolee y a trois cent élèves mètres quatre cent étudiants plus les encadreurs plus le personnel administratif ñooñu ñëpp tey ñu ngi xel comme ce qui fait que tey xel comme la plus petite tey njuufeen yi ak fayeen yi c'est c'est minimum euh, nu ñu koy waxati euh, vingt mille et cetera donc am na benn impact intéressant boo xam ne nit yi tey xel koom am na ko quoi. voilà voilà ci ci beneen mm-hmm. euh, buñ ko waxee maanaam dem beeg dikk bi foofu tali yeeg ak xal yi. tey lan la am na lu ci luñ ci war a jooyanti wala. waaw dem beeg dikk bi aussi am na ay amélioration parce que am nañ ay pistes de production yoo xam ne entre Xelkom ak commune de Maraxun biir Xelkom même commune boo fa buggaan dugg nawet kenn mënu fa jaar parce que c'était infernal ndox bi kenn amul fa dugg kenn amul fa jaar mhm. mais il fa fallu que j'utilise mon carnet d'adresse ñëw ci entreprise bi nga xam ne fa laay liggéeyee soumettre leen ñu defal ma un kilomètre cinq cent de piste Euh, avec latérite et du goudron recyclé boo nga xam ne ni tey lu taw taw nit ñi dañuy dugg ak génn et ci perspective yooyu lañ nekk aussi avec les chinois yi nga xam ne ñooy defar télé bi jógee Mbour dem Kaolack dafay traverser Khelcom te aussi on a dégagé un certain nombre de pistes ak routes yoo xam ne nii dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises ñoom chinois yi war nañ ko defaraat pour nit ñi mobilité bi dem ñëw mobilité boobu aussi am na solo parce que tey képp ku dëkk Khelcom wala les environnants de Khelcom te on a négocié ba nga xam ne bus Tata Kaolack xel comme mooy seen are à partir de 6 heures 30 du matin jusqu'à 21 heures 30 le soir les bus font des va-et-vient donc à tout moment les gens peuvent aller sortir et cetera donc je pense que. loolu aussi kon euh, désenclavement bi ñu koy wax yow yaa ngi koy yaa ngi koy dund foofu. xel comme moom c'est complètement désenclavé quoi. enclavement xel ko moom amatul. on peut sortir à n'importe quelle heure Jakarta ngi foofu jëlee même appuyé pour tabaxal leen benn arrêt donc ñiy wàccee ci bus yi bu ñu mënul dem ci yeneen bi laa jël ay Jakarta ñu transiter leen ñeneen ñi dañu jël seen charrette ñëw ba xel comme jël dem Kaolack. Mhm. et cetera donc vraiment y a une nette amélioration sur ce plan. Mhm. mais maintenant côté infrastructure aussi parce que les infrastructures ne sont pas uniquement les routes. Mhm. parce que qu'on a pu bénéficier aussi de deux grands forages supplémentaires yoo xam ne nii c'est grâce au PIDC ci lañ ko am la politique sociale du président dans le cadre du programme développement communautaire on a deux grands forages plus ba fa nekkoon de telle sorte que tey c'est la seule commune où il y a pas un seul village qui n'a pas eu tous les villages sont connectés au réseau hydraulique kon yéen ñàkku leen ndox li li yeneen communes yi wax ndox moom wax dëgg amu fa li am kay mooy xanaa comme léeg-léeg suñ mbokk séeréer yi fi ñu dëkkee kenn ñëw nii kenn dem ba fële nga dëkk fa ñu ne robinet bi fii la yem nañ ko fexe mu yóbbu fenn mais dëkk boo gis am na ndox courant aussi je pense que tey euh, je pense que le directeur de l'électrification rurale je le salue au passage monsieur Dieng nee na ma li ma am presque kenn amu ko parce que mooy lan nga am foofu boo xam ne nii en sept ans on a ajouté dix-huit villages électrifiés donc euh, je pense que loolu nekk na loo xam ne nii trois moo fa nekkoon bi may jël commune bi deux yi man la woon avant may nekk maire on a ajouté dix-huit donc tey di d'ici euh, deux mille euh, nu ñu koy waxati euh, peut-être d'ici quatre ans cinq ans. Mhm. on aura le courant à cent pour cent. kon mën nga jàpp ni walla ci liggéey bi nga nekk di def perspective yi mooy dëkk bi dem ba fépp leer. fépp leer mooy suñ objectif d'ailleurs ci biir semaine bi on a reçu nu ñu ko waxati une délégation de l'ANER. agence nationale électrification rurale dans le cadre parce que bu njëkk lampadaire yi ñu ngi ko yemaloon ci biir yi mais léegi le président dans sa magnanimité a voulu que toutes les communes puissent être dotées de lampadaires. Là aussi, on a ciblé plusieurs villages yoo xam ne nii on va mettre des lampadaires solaires pour que éclairage bi aussi gën a am solo. jàpp nga ni itam euh, nii nga ko waxee ni noonu la ko maire yi itam yu ci bari war a defee parce que ñoom dañuy xaar négub état door indi li ni mel est-ce que loolu itam yaa ngi ko doon wax coopération wala sa agenda dem uti ay partenaires ñu ñoo jàppale la. waaw loolu si que maire bu ci nekk bu fekkee da nga nga toog rek yaakaar naa doo mën def lu bari. donc euh, puis nit bu ñu la falee aussi yaakaar a tax ñu fal soit yaakaar ci ci li nga am nga def ko fa parce que loolu aussi je peux bien intervenir parce que man damaa njëkk ci sama bopp j'ai fait des investissements colossaux dans la commune pour pouvoir accueillir les étudiants j'ai fait un projet immobilier boo xam immobilier boo xam ne nii c'est une centaine de millions yoo xam ne je l'ai dépensé sur fonds propres pour pouvoir parce que xel comme bi mu waree accueillir trois cent étudiants quatre cent étudiants cent élèves ñooñu dafa am fu ñu war a dëkk dafa am lu ñu war a dëkkee donc ci laa dem jël ci limaam def un projet immobilier très important boo xam ne ni tey université moo ko jël mettre fa di jëlal ko étudiants yi ñu mun fa nekk. te daf leen di apporter. loolu ça a impact aussi parce que tey résidence boobu nga xam ne résidence Lamine Sitoor lañ ko tuddee. y a plus de vingt quelques personnes qui travaillent là-bas. les femmes de ménage perçoivent quatre-vingt mille francs. ñëpp ci commune bi lañ dëkk. te ñooñu aussi c'est un impact euh, positif parce que ñooñu tey bu ma ko defoon comme bi ma ko fay tabax am na ñu ñoo ne woon monsieur le maire Dakar moo ëpp mais dëkkuma Dakar il faut que nit ñi accepter retourner dans leur base investir dans leur village pour que wane un bon exemple pour les jeunes. Mm-hmm. man loolu laa gëm moo tax tey xel comme ma ne la terrain bu gën a tuuti léegi. Mm-hmm. c'est un million cinq. Mm-hmm. émission gox bi jaraaf Alassane Daw lay dalal nit ki tey euh, di waxtaanee rek ci li nga xam ne moom moo jëm ci xel kom euh, commune bu Xelkom Birame euh, monsieur le maire dégg leen la yaa ngi wax ni itam maire yi faaw ñu dem uti ay ñu mën a jëflanteel ngir ñu mën a génne itam ci jafe-jafe yi nga xam ne fa lañ nekk waa léegi ci wàllum école yi foofu nag ci biir commune ba ndax amuloo ci ay jafe-jafe wala salle de yi parce que abri provisoire moom bari na fi waaw wàllu école aussi je pense que quand même euh, yaakaar naa boo demoon tey dem IEF neew bi nga xam ne moo ko fi commune Xelkom on va te citer les meilleurs maires en termes de d'éducation parce que rien que démb examen entrée en sixième là mm-hmm. on a quatre centres d'examen j'ai appuyé tous les centres sur fonds propres et je l'ai fait depuis que je suis là chaque année j'appuie les centres pour pour, pour, pour, pour restauration mm-hmm. le des le CODEC le collectif des élèves des instituteurs aussi chaque année on a les dote premier ubbi tey jàng tey commune Xelcom Birame la am depuis que bu ma fi nekkee ba léegi. ubbi tey jàng tey. avant ouverture toutes les fournitures sont sont distribuées. am na ñoo xam ne dañuy bàyyi ba école bi ubbi ñu soog indi. fourniture ñun moom macha allah bañ fi nekkee ba léegi chaque année balaa école di ubbi dotation fourniture yi dem na ci école yi. ci xayma. ci xayma budget bi ça tourne autour de sept à huit millions yoo xam ne chaque année dañ koy jënd ci entre bic ak kay ak jàppale ko. maanaam am na portée boo jox ci wàllum jàng. waaw portée boobu te aussi résultat aussi ñu ngi koy wane parce que am nañ trois CM yoo xam ne ni ce sont ces CM là qui font presque qui sont premier en de résultats dans le département de Guinguinéo. loolu aussi vraiment nekk na loo xam ne nii et puis on a très bonne relation de partenariat avec les maîtres je les rencontre le CODEC le collectif des des enseignants des directeurs. On se rencontre tous les six mois pour faire de l'évaluation à mi-chemin mhm. et en fin pour pouvoir voir quelles sont leurs préoccupations parce que nit ki soo koy defal da nga koy laaj li mu bugg. Mhm. noonu la ñuy fonctionner fourniture yëpp ñoo ñoo ñuy wax leur explosion de besoin en fonction de notre enveloppe dégagée. Mhm. ñu jënd ko jëbaleen. jënd ay photocopieuses jox leen jël ay rame papier jox leen parce que lép léegi sur polycope ak photocopie lañ koy defee. donc loolu yëpp dañ leen koy jàppale. boole si chaque année ren on a dégagé un million pour la fête de l'excellence à la fin de l'année tous les élèves qui sont bons dans leur classe les premiers on organise une grande fête pour faire une émulation pour les jeunes def ko woo fanfare armée ñu ñëw on fait des discours jox xale yi ay ay raaya pour que xale yi xam motiver leen quoi motiver leen ñu xam ne affaire yi njàng la du leneen mais njàng la du leneen itam bu ñu déggee ñuy wax abri provisoire quand même yow dépassé nga foofu. non abri provisoire sax daanaka def naa dese naa si mais lañ ci des bëri parce que chaque année notre politique mooy on essaie d'éradiquer les abris provisoires. moo tax d'ailleurs ak clôture des écoles parce que j'ai commencé l'année dernière on a pour l'instant cette année on va clôturer une école l'année dernière clôturer na ñaari école muy école bu ñuy wax Saate wala kenn mësu ko clôturer ak ñu ak école ngee ko wax clôturer nañ ko ren on va clôturer école bu ñuy wax Bac Samba Dior donc dans notre plan d'action mooy chaque année on essaie de clôturer deux deux écoles de telle sorte qu'au fur et toutes les écoles vont être clôturées et mettre les les élèves et les mettre en sécurité. la la la la ban motivation nga am ci boo gisee école bi nuñ koy perturber des fois euh, jàng bi dañuy dem ba ci biir grève yeeg ainsi de suite li ni mel dafay indi impact lool ci li nga xam ne moo jëm ci examen yi yi nga xam ne moom la ñuy dem euh, est-ce que tey jotul ñu toog. waxtaanee mbirum jàng bi mu jeex. non je pense que au sortir xanaa dernière rencontre yi nga xam ne ni euh, syndicat enseignants yi def nañ ko ak gouvernement bu kale ay des accords ñoo ne les accords ne sont pas respectés les gouvernements est revenu pour corriger je pense que dina am accalmie au sein de l'école parce que aussi jàngale sacerdoce la mais la plupart de temps aussi aujourd'hui ñu bëri ñuy jàngale ils le font parce que parce que par défaut looy def par défaut nag gëmuloo ko su fekkee ne xaalis rek moo la tax a jóg je suis désolé loolu day moo indi na aussi si nga xam ne nii mooy njàng mi niveau mi am na problème niveau jàngalekat yi am na ku ko wax ko ko ko ñemewul nga nga moom mais niveau élèves na problème parce que niveau jàngalekat yi am na problème su fekkee ne nag euh, jàngalekat bi xaalis rek la def ci boppam je pense que ça pose problème voilà nañ def de telle sorte que les accords bu ñu ko defee gouvernement bi des les accords parce que man lu ma mënta euh, respecté lu ma ko signé bu ñu signé nañ ko appliqué mais bu ñu ko appliqué nañ ñu may jàmm xale yi xale yi jàngi parce que réew njàng moo ko yor ay grève à n'en plus finir euh, kuram quantum horaire bi élèves yi duñ ko mun a atteindre loolu je pense que quand même euh, war nañ xoolaat loolu éviter vraiment de mêler de la politique avec les syndicats parce que aussi euh, niñ ko waxte dee mais ñu ci bëri les leaders syndicaux sont dans les partis politiques donc il faut pas mélanger la politique et les syndicats man je suis un syndicaliste parce que je suis le secrétaire général du syndicat bâtiment et travaux publics mais je sais faire la part des choses malheureusement c'est pas le cas dans le système éducatif ah bon nga ciy da nga ciy ah, raaxaale. da nga ko ciy raaxaale trop te ci ëpp sax. te loolu c'est mm-hmm. mais dañuy gis itam dem ba ci cappaandaw ga enseignants yi indi accord boo xam ne indemnité de naam léegi sax indi nañ ci ay saafara mais après da ngay xoolaat rek école tijjiwaat ñu dàbbaliwaat mbir mi est-ce que période vacance bi ñuy am waruñu mën a toog waxtaanee lépp mu farankulaay. non loolu laa wax nee naa je pense que accords yi ñuy jógee signé ko. boo ku ci nekk man rek benn benn benn démb benn bi enseignant nee na ma non affaire yi dañu war a mais euh, président vraiment yokk na ah fi mu toll moom vraiment xam salaire yi c'est bon comme salaire yi c'est bon nañ nañ jàngi nag bàyyi leneen ku ci bëgg a def politique nga wàcc si le terrain politique affiché mhm. ba ñu it ba ñu jël mbubu syndicat dangu politique bi. mais quand même pense que quand même ils ont signé des accords le gouvernement a respecté le gouvernement a continué n'a qu'à continuer à respecter les accords signés avec les enseignants. Mhm. et ñoom aussi ñoo xam ne tout ce qui concerne l'école y a des accords c'est signé on on a exécuté. Mhm. nañ dellu ci classe yi ku ci bëgg a politique nag nga génn sol sa mbubu politique ba ñu loolu am solo la euh, wàllum paj itam lu am solo la secteur santé ndax euh, laata ñuy dugg ci lool sax euh, foofu secteur santé ci commune ba nan lan nga ñu mën a wax ci performance bi ak naka nga ko nga leen di jàppale foofu. performance bi ni ma koy waxee mooy répéter li nga xam ne les médecins du district du département de Guinguinéo en pleine inauguration de de la maternité de Ngekokh mu ne je te décerne le ballon d'or des maires Sadio Mané. tey ah, monsieur le loolu moom boo ko waxee yaa ngi dalal xelu aska wi de. moom moo ko wax en pleine cérémonie di d'inauguration d'une maternité. aujourd'hui man docteur district du département de Guinguinéo si je devais décerner un ballon d'or pour les maires côté santé bi ma yor si monsieur Diaraf Alassane boo tax boo tax mhm. xale yi di ma wooye ci koñ léeg-léeg nga jaar ñu ne la Sadio maane voilà parce que dañ gëm ne santé éducation sont les deux piliers fondamentaux yoo xam ne ci lañ mën a reposer pour bâtir une société forte et durable. commune bi fan la toll ci wàllum santé. ci wàllum santé tey wax naa la ko commune bi on a trois postes de santé et on tend de santé parce que xel comme en tant que commune on a lancé l' appel d' offre grâce au de santé donc on a trois postes de santé on a plusieurs cases de santé et chaque année c' est la première commune qui dote. en produits pharma kii médicaux ces ces postes de santé moo tax euh, ni ñu ko wax euh, docteur ne ma félicitation et on nappi beaucoup en carburant en produits d'entretien et on a fait inscrire une ligne budgétaire pour appuyer ñi nga xam ne nii ñooy relais yi ak bàññaanu gox yi ngeen dégg dégg da ngeen di dégg relais ak bàññaanu gox ñooñu kenn fayu leen bénévolat la ñuy def ñun dans notre commune j'ai proposé une ligne budgétaire pour les appuyer chaque année jox leen une enveloppe boo xam ne nii parce que ñooñu ñooy def euh, programme énergie de vaccination ñooy gunge infirmiers yi ñooy gunge sage-femme yi ñooñu il faut nga motiver leen donc moo tax vraiment not notre politique euh, santé c'est une politique très appréciée par les les les décideurs yi nga xam ne nii ñu fa nekkal état muy le médecins district subvention moom du tardé subvention mosul tardé on a multiplié le budget de la santé par cinq depuis qu'on est là. En plus, avec la coopération internationale, nous avons pu avoir deux ambulances médicalisées qui nous viennent d'Italie et des produits à hauteur de près de 30-35 millions d'une ONG française boo xam ne jàppale nañu ko donc pour dire que côté santé li commune bi am ñu ngi koy utiliser mais ñu ngi dem aussi jéggaani pour pour pour pour wuti et tout récemment je avec benn promoteur boo xam ne aussi Euh, ay matériel médicaux ay affaires yooyu ci lañ nekk pour xool nañ lañ koy indilee population bi quoi. Euh, boo déggee li xewoon ca diwaanu Tivaouane euh, ban sentiment nga ci am déjà négligence bien vrai que yaa ngi ni yéen a ngi liggéey en parfaite adéquation ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk est-ce que yéen yaa ngi leen di soññ ci mbir yooyu wàllum négligence accueil beeg institut ci wàllum santé waa waaw souvent man dama koy wax li nga xam ne nii souvent bu ñuy bu ñuy dotee. poste de santé yi bi ñuy jël ci seen médicament parce que dañuy convoquer les infirmiers chefs de poste les présidents de commission de santé les CDS invité le président de la commission bi nga xam ne moo nekkeel mairie ak bàjjanu gox yeeg ñëpp. souvent bu ñu naan euh, monsieur le maire merci ma ne leen yéen laay remercier parce que euh, quand même euh, comme ni ñu ko waxee santé dafa ànd ak responsabilité. ak mhm. discipline ak politesse. parce que tey nit bu ñëwee jaaxleem hôpital. lim ñooy rek nga ko mën a jàppe mais bu ko gën a toroxal bu ko gën a yokk tiit donc je pense que sur le plan santé ci personnel bi daama ma commune je n'ai rien à vraiment reprocher ñi nga xam ne ñu ñoo ko faire au contraire dama leen di sant di leen di gërëm parce que dama leen wax ne tey bu sooxe woon mbaa ngeen am nu ngeen nekkee maa koy njëkk a yëg Et souvent, chaque fois, on me dit que Boademé Ngakor, Etienne, il est formidable, c'est l'infirmier chef de poste. boo demee fële Ndeye Dramé moo fa nekkoon dafa plus d'une dizaine d'années jógee na fa ku ñu wax Rachel moo fi nekk. boo demee Bac Samba Dior mais ñoom ñëpp ñu ngi ils sont conscients euh, ñu ko waxati de leur mission bien que c'est souvent c'est très difficile. Mm-hmm. mais ñun li leen di ñaar rek mooy nit ñi bu ñu ñëwee nañ leen accueillir. Euh, orienté leen ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. Mm, maintenant euh, erreur du ñàkk léeg-léeg. Mm-hmm. mais je pense que dans ma commune quand même on touche du bois. amagul problème boo xam ne nii xamle euh, bu matay bu war a watar tax en tant que maire mu jóg wala wala kii non vraiment amaguma fa on touche du bois. Mhm. alors ci commune bi monsieur le maire nit nag itam dina bëgg génn yaa ngi koy wax xel comme euh, est-ce que euh, li nga xam ne moo jëm ci environnement bi cadre de vie bi itam mhm. askan wi dinañ génn foo xam ne dañ fa toog mun a féexlu di mun a waxtaan ak seen njaboot bu mu bëggee génn mhm. comme yaa ngi wax ni yeneen communes yi commune boobu itam dafa mel nii ak cadre de vie solo la. waaw cadre de man dafa nekk loo xam ne lu ma fonk la tey bu la yàlla mayoon nga ñëw waxeel ko da nga xool espace public bi ma aménagé sur fonds propres pour permettre aux étudiants aux élèves mettre la nuit ou bien n'importe quelle a toog ci banc yi. Mm-hmm. féexlu ay lampadaire tour donc yooyu man dama ko gëm et on avec aussi le ministre de l'environnement et de l'urbanisme de l'habitat ay projet parce que am nañu espace diggante xel comme diggante commune bi ak tali bi on a sur sur nu ñu ko waati foo xam ne nii dañu bugg aménager ko ay jardin mhm. foo xam ne nit bu toogee mun a dem toog waxtaan foo mun a féexlu mun a jël air mun a et cetera mhm. loolu gëm nañ ko parce que cadre de vie aussi c'est c'est très très important mhm. et on en prend compte et je pense ça fait partie aussi de notre politique euh, au niveau de la commune ak jëm ci environnement itam parce que des fois daggum garab yi ak ainsi surtout surtout politique environnement d'ailleurs le président de la commission environnement euh, tey jii mu nga Kaolack pour une réunion dans le cadre de de suñ Euh, d'une d'une réunion convoquée à la gouvernance pour lu jëm ci environnement et développement dural mm-hmm. am na fii au niveau Eiffage am na fi am nañ ay projet ak ay partenaires yoo xam ne nii dama bugg a def benn connect connect connectivité connexion entre Eiffage et ma commune. Mm-hmm. parce que gis naa lu am solo lu ñuy def ci environnement ay projet mm-hmm. dama bëgg xel comme nekk la commune pilote waxtaan naa seen ñoom donc damay xaar. école tëj parce que président commission environnement professeur la pour que mun a ñëw def fii ñu def benn une rencontre xool dans quel cadre mhm. comme pour redéployer a envie d'intéressant mhm. dans le cadre du développement durable et dans le cadre duñ ko waxti pour que permettre population yi mun a nekk dans un environnement agréable mhm. mbéy mbéy yoo xam ne duñ sonn te dinañ ci am vraiment ay ressources yoo xam ne nii dina tax njuufeen yeeg fayeen yi dina mun a baax si ñoom. mais ci ci ci wàllu woowu itam dañuy gis ni li nga xam ni moom moo jëm ci infrastructure yi boo nee infrastructure yi football ak euh, li nga xam ni moom moo jëm ci stade yi. Euh, politique bi foofu nan la fa toll ci mairie ba. waaw li njëkk a def bi ñëwee première anne bi njëkk a def stade municipal lañ tabax parce que on a vingt équipes nawetaan leur subvention comme ni ñu ko waxee bi ñu joué ba pare. ay deux maillots dañ leen leen jox depuis que bu ñu ñëw avec mes partenaires j'offre dix jeux de maillot à la finale. voilà infrastructure sportive yi nga xam ni yu am solo la euh, subvention AIC yi ñu ngi dugg si déjà ñu ngi waajal nawetaan yi euh, fu mu toll ndax am dara du tardé foofu. waaw comme ni ma ko waxee boo woon tey président zone bi fa njëkkoon nekk kii même élection yi passé il est parti faire sa liste mais di la wax ne liñ am ci man mosuñ ko am. Déjà, première année, on a construit le stade municipal, clôturé avec turbine. Dotation maillot, je, je, je, les ai trouvés, ils ont deux jeux de maillot. Final, deux jeux de maillot, ils ont vainqueur, vaincu. Moi, je suis allé jusqu'à 10 jeux de maillot. Toutes les équipes quart de finalistes ont un jeu de maillot. Équipe fair play, des un jeu de maillot. Mm Donc, encore chaque année, je prends tout, euh, l'organisation jusqu'à la finale, man, ma en charge. Et leur subvention, moi, sur le tardé. Avant moi-même, ils ont marché pour récupérer leur subvention. Mais depuis que je suis là, la subvention. D'ailleurs, cette année, on a augmenté la subvention. Donc pour vous dire que quand même, on tient à la jeunesse, mhm. mais nous voulons une jeunesse aussi responsable, une jeunesse lucide, mm -hmm. une mhm. jeunesse consciente de ses prérogatives et de mhm. ses, de ses, voilà. mais euh, ci wàllum nawetaan yi léeg nag dañuy dem football bi rek la ñuy jàpp euh, am na yeneen aspect yi nga xam ni euh, am na fa yenn professeurs yi bu ñu jëlee vacances ak aspect culturel bi mais football bi rek daanaka mooy gën a fës. waa loolu man dama koy déplorer toujours chaque fois bu ñuy amee rencontre ak jeunes yi. dama naa ne ASC lañ wax association. sportive, culturelle. Non, volet culture moom on a fait beaucoup parce que je remercie un jeune mon responsable des jeunes bi nga xam ne étudiant à l'université Sine Saloum parfois mu def ay activités culturelles yu am solo parfois on organise des séances de lutte yu am solo d'ailleurs cette année j'envisage avec euh, ni ñu ko waxati euh, l'écurie de lutte de lutte là ñu organiser un très grand drapeau boo xam ne nii dañ koy tuddee peut-être drapeau mon grand frère euh, premier adjoint au maire. Mm-hmm. ce que je suis en train de voir avec moom. Mm-hmm. donc pour Dekalaat Cosaan voilà et cetera donc mais je pense que les ASC e doivent aller au-delà du football rek. initier des projet pourquoi avicole aviculture et cetera des projets yoo xam ne agricole ci biir nawet bi ah, buñ footballee tey suba ñu dem ci tool bi bay bay yàggul un mois de mois après récolter am lu ñu am c'est mieux que chaque fois tu attends la mairie ou bien tu vas solliciter des personnes ressources pour qu'on finance je pense qu'on doit dépasser ce stade de uniquement c'est limité ci football rek mais voir aussi d'autres créneaux yoo xam ne nii des créneaux porteurs yoo xam ne nii eh, ñoom dinañ si mën a gis seen bopp sunu gan moom mooy maire bu Xelcom Biram euh, monsieur le maire dañu la dégg yëpp nga wax fii ci ko ci ay projet sumu nga ko dafa mel ni kon xel Xelcom Biram mi ngi ci yoonu émergence. no tey moom c'est pas parce que je suis le maire de la commune de Xelcom Biram mais tey ku dem Xelcom xam na Xelcom a émergé parce que tey boo xoolee comme ni ma la ko waxee. Euh, volet électrification tous les villages ont l'électricité tous les villages ont de l'eau tous les villages presque yëpp Euh, donc ñu ngi jéem a xool euh, comment appuyer les groupement féminins <laughs> ah donc ñu ngi jéem a nouer des partenariats donc euh, loolu loolu lañ gëm parce que aussi pour man boo ñu lay defee njiit da nga war a def de telle sorte que ku ñoo xam ne jëlee nga ko point A indi ko point B. Mhm. pour firndeel ne avancement xel comme maa ngi saluer sëñ nañ ko waxati maam Cheikh Anta Mbacké doomu sëñ Mourtala mhm. benn bi nga xam ne nii moo doon voyager toujours ci yoonu Mouride. Mhm. dafa jaar benn jour ñëw ne ñëw sama kër. ànd am ku mu àndal ne man dama ñëw doon laajte monsieur le maire ma ne ko maa ngi nii mu ne ma ah, man de dama jaaroon rek pour ñaan la ngir kii ngir jëm sëñ Touba ak yàlla ak yonent bi parce que dama gis xamoon xel kom ak xam xel kom tey ma ne kii ki fi nekk jàmbaal la jar na ñaan jaara ñaanal xam nga loolu rek doy na sa son sa parce que c'est un religieux du politique du dara mais xam fi mu ko fekkoon moo tax ma ne la tey boo bëggee demi parcelle tey xel kom da nga fay un million cinq commune bi dox commune bi mu ngi mu ngi dox quand même. Mhm. mu ngi dox léegi euh, monsieur le maire ci li nga xam ne moom moo jëm ci commune yi des fois yéen maire yi da ngeen di jot ay subvention seen ay euh, li nga xam ne nag mooy seen budget léeg nag ñu ci bari dañ koy xaar euh, ci subvention yooyu mais dafa mel ni yokk ko itam li gën la ci commune yi. waaye xam nga Pakasen sax moom ci commune rurale jotaguñ ko woon mais on a président waxoon na à partir de deux mille vingt deux bi Pakasen rural bi dina dugg. bu duggee dina nekk loo xam ne aussi ça va être un plus parce que ñun envisagé nañ ci lu bëree bëree bëri loo xam ne nii ay CEM yu ñu war a defaraat ay piste yu ñu war a defaraat ay école et cetera donc loolu day nekk toujours dans le cadre de l' amélioration du quotidien des des sénégalais. Mm-hmm. des sénégalaises donc kon. Euh, plus de ressources daal. Mhm. je pense que euh, du du du du nekk li yàq affaire yi au mhm. contraire. Mhm. dana permettre tous les maires euh, vraiment ñu mën a développer seen gox moi je le dis souvent plusieurs collègues plusieurs colloques yu ñuy organiser des séminaires yu ñuy organiser des conférences yu ñuy organiser tout cet argent là qu'on utilise pour faire des séminaires à Saly n'importe quoi je pense que tout ce qu'on devait penser rédiger tout ça a été fait nañ génne tiroir yi. xaalis boobu ñuy def ay colloques yeeg séminaires yi à plus finir. ñu dolli ko ci budget fonctionnement maire yi. et ou bien moi je le dis souvent le budget du Sénégal estimé à plus de mille milliards. Mm-hmm. on a cinq cent cinquante sept communes. faisons de telle sorte que chaque commune un milliard. ñu jël les service technique de l' état ñu encadré ñu bu ko defee man je suis sûr que même avec un demi milliard par année suñ ma ko joxoon cinq cent millions par année de budget au bout de cinq ans dootuñu wax abri provisoire dootuñu wax école bu ñu clôturewul dootuñu wax poste de santé bu délabré dootuñu wax fa amul ndox dootuñu wax amul courant je pense que la meilleure façon d' aller vite vers l' de doter des communes hein, prendre sur les budget prendre les services techniques nous parce que ku la jox sa xaalis aussi war xam fu nga koy def je pense que si on fait ça c'est la c'est c'est moyen bi gën a gaaw. pour que nit ñi atteindre l'émergence man c'est mon avis. mën nañ jàpp ni xel comme biram am na luuma marché wala loo xam ne eh, juntuwaale yoo xam ne nit ñi dañ fay suturloo jaay bi parce que itam dañuy soxla benn cadre de vie bu ñoŋ. waaw marché mooy la nga xam ne nii amaguñ ko mais on est là-dessus parce que am ah, j'avais euh, produit benn projet. Euh, soumettre ko benn euh, fondation Veolia. Mhm. ba ñu répondre ma ne ma dafa na dafa ay correction ñu yónni waat leen ko mais jotaguñu réponse mais n'empêche ñu ngi jéem a xool aussi dans quel cadre bu ñu amaat beneen partenariat mu defal ñu benn luuma boo xam ne. Mhm. luuma aussi on est là-dessus parce que on avait même créé une commission euh, bi nga xam ne ni le président des éleveurs moo ko jiite woon. qui va permettre bu nga xam ne nii tey buñ jogee fas am na lu ma fas am na lu ma gen gen gi neew ñu ne après tey lu ma xel comme ainsi de suite donc dina permettre toujours jigéen ñi parce que je les salue au passage jigéen ñu ñemee coono lañ. ñuy daan seen doole. war na produit yi ñuy am. ñu mun ko kii ñu ngi am aussi en perspective euh, li longe tali bi yëpp li nga xam ne nii euh, c'est presque un kilomètre. Euh, jéem ko ut ay promoteurs yi ñu ko defal ay cantines. de telle sorte que booy dugg si loo bëgg a jënd bu dee bisaab bu dee mango bu dee pere lu ñu kii da nga mën a stationné nga jënd dem et cetera. loolu kon yaa ngi xalaat renforcer politique sociale bi foofu. bien sûr renforcer politique sociale bu nga xam ne nii nga a toog am foo ko mhm. a am jënd kii quoi loolu aussi mhm. nga xam ne moom moo jëm ci secteur BTP bi mhm. tàppi ci politique bi jeexalee foofu euh, secteur bi tey mu mel parce que ñu ci bari dañuy wax ni ñoom duñu jot commande publique bi ainsi suite jote si dafay metti tey lan nga ñu ci mën a wax ci xayma. waa secteur BTP boo xoolee tous les projets de la politique du président euh, soo ko xoolee si ay infrastructure la boo waxee infrastructure foog nga wax entreprise. boo waxee entreprise foog nga wax ay nit. donc kon liggéey bi am na entreprise yi ñu ngi liggéey mais est-ce que nit ñi gis nañ ci seen bopp c'est ça le yow secrétaire général nga bàyyi ñu laaj la euh, question bi nu mel ndax nit ñi ñu ngi siy gis seen bopp. voilà donc c' est foofu mooy bon may njëkk a mooy teg secteur BTP tey dafa nekk secteur bu très difficile boo xam ne nii euh, dama koy wax souvent j'ai l'habitude de le dire à de vos confrères ñi may interpellé. Mhm. l' état doit réguler le secteur. comment. gérer ni ñu ko waxati la vente du ciment du fer tout ce qui rentre dans le secteur du BTP parce que tey boo xoolee ciment eh, kenn xamul fi ñu jëm. dañuy toog rek cimentier yi euh, ah, ñoom ñetti groupe yi fi nekk toog rek xëy na yokk nañ alors que tous les matériaux qui entrent dans la fabrication du ciment n'est pas importé yëpp fii lañ koy jëlee ils ont leur propre centrale électrique yoo xam ne seen courant ñoo koy utiliser donc ñooñu gisuma yenn condition moo war a tax rek ah, chaque année rek un augmente le ciment de 40 000 aujourd'hui on est à 80 000 presque la cher na na le fer 2020 le fer tournait autour de 440 000 kilotonnes 450 000 la tonne tey le fer coûte 880 000 dans certains magasins dans à l'intérieur du pays je pense que rythme boobu bu demee le Sénégalais lambda n'aura jamais les moyens de construire et koo gis muy liggéey bëgg na am toit donc loolu man pour man le fer de la Falémé bi ñuy wax je pense que l'État doit avoir comment exploiter ce ce fer pour que nit ñi à un coût boo xam ne ni nit ñi dinañ mën a dootuñ mën a dépendre du fer de l'extérieur parce que tey pour nga tabax c'est tout à fait un problème mm-hmm. maintenant les grands projets de l'État tey lee grands projets de l'État man dama koy wax nous sommes dans la mondialisation dans la globalisation noonu pour mënuñu bañ ay ñeneen ñu am expérience ñëw mm-hmm. parce que ce sont des métiers nouveaux les métiers du terre xamuñ ko woon donc foog ñu am xam ña ko xam ñëw ñu def link ñi fi nekk ñu mën a am li ñuy wax retour d'expérience loolu on n'est pas contre li ñu bañ teen mooy ñëw jël lépp jox ko étranger mais ce qui est en train d'être fait mm. la TRT boo xamoon ña ko ña ko liggéey Eiffage mu ngi ci CSE mu fii yeneen entreprise mu ngi fii de telle que deuxième tranche bi ñu ngi si waat entreprise yooyu ñu ngi fi CSE ñu fi ñëpp a ngi ciy liggéey maintenant boo xoolee côté les entreprises multinationales chinoises foofu loolu BTP sonné parce que ñooñu dafa nekk nit ñoo xam ne Euh, nit ñu doy waar lañ mooy entreprise chinoise yi état Sénégal moo lii ak état Chine Chine donc entreprise chinoise yi bu ñu nekkee Sénégal lu leen neex la ñuy def respecté ñu code du travail respecté ñu convention 87 doo fa gis délégué di personnel amul amul négociation collective da ngay def li mënoo ko ñu dàq la boo demee inspection mënuñ ci dara c' est là où je dis que l' état doit prendre ses responsabilités parce que mënta mënta mënta mënta ni ñu ko waxati mënta état. dafa war a am fort. et l' état doit garder sa souveraineté mais avec les chinois l' état a perdu sa souveraineté. monsieur euh, Jaraaf Alassane euh, Ndao ñu jeexalee ko rek li nga xam ne mooy jëm ci politique bi gis nga ko de indil liste jàppal liste indil manifestation bàyyil manifestation opposition pouvoir dafa mel ni waxtaan daal amatul te mbir bi mi ngi jeex jeex yi. waaw c'est c'est regrettable ce qui se passe mais je pense que pour man nit ñi war nañu revenir sur terre quoi ànd ak lucidité parce que aussi dama jàpp ni réew mi ñun ñëpp ak bokk ki ko yor ak ki koy wut yëpp ñun ñoo ko bokk ki ko yor je pense que li mu bëgg mooy améliorer ko ki ko bëgg a yor it li mu bëgg mooy fekk fi réew moo xam ne dina ko mën a améliorer donc faisons de telle sorte que ku ci nekk mën a xam savoir raison garder loo gis man politique gis gisuma ci sànni xeer gisuma ci saaga gisuma ci wax lu ñaaw ma si je me dis tey Euh, opposition bi tey moom bu ñu wóoloo seen force nañ dem élection parce que tey réew mi kenn mënu fi sàcc élection la preuve les grandes villes kan moo ko gagné élection yi passé c' est l' opposition kan moo ko organisé c' est l' administration yeneen yi président gagné aussi kenn moo ko organisé c' est l' donc je pense que man su fekkee ne ay liste def nañ ay liste ñu ne liste bi baaxul wala affaire yooyu man pour man yooyu ay détails man daal li ma amal solo mooy réew mi ñoo ko bokk nañ toog xool nañ lañ ko mun a gérer. bañ a toj bañ a yàq parce que looy defar ay année nga bu ko defar nga ñëw tey rek kenn meer ñëw toj ko xeer encore que nit ñi ñu xam ne contre état c'est pas contre tey Bamba ñëw fekk oto jaamur nga toj bituk jaamur nga toj dugg ci biir yóbbu mais loolu du manifester loolu c'est pas la politique loolu c'est du banditisme et là l'État doit prendre ses responsabilités le garant de la sécurité c'est l'État am na loo xam ne nii bu ci nit ñi nar dem état na jël ses responsabilités ba mu sëkk parce que man quelque soit alpha su ma doon opposé it du ma wax kenn tojal xeer du wax kenn toj daajil buntu jaambur dancil bitigu jaambur dancil nangam ram loolu bokkul ci opposition opposition mooy opposition républicaine man bu ma jàppee ne tey ba mi man mii nit ñi mën lañ gëm loo mënti def dama naa la garaaw nañ dem ci làmb ji rek arbitre dina siffler mm-hmm. jarul xuloo xeex man noonu laa ko gisee. mais est-ce que yéen ci geneen wàll gi Benno Bokk Yaakaar euh, bu ñii di wax beneen du ngeen indi ay act yi nga xam ni yéen moom ngeen liggéey wan ko bañ a topp ci opposition bi ci li muy woote. waaw loolu laa wax ma ne man man su fekkoon ne man la man man bu nit wootee xuloo xeex ma indi jàmm mais naa nag ça n'a rien à voir avec l'état de droit parce que aussi mënuñ permettre comme ni ma la ko waxee. bàyyi ay des gars yoo xam ne nii ils sont prêts uniquement buñ ne tey manifestation am na rek nga ne tey c'est un moyen pour me remplir les poches wala pour dem dévaliser loolu c'est pas une manifestation là aussi il faut que les gens euh, nu ñu ko waxee xam sur quel pied danser am na loo xam ne nii mënul nekk donc loolu dafa nekk loo xam ne nii euh, état war na ci jël ay responsabilité maintenant le dialogue politique quel que soit alpha buñ reyantee luñ munti dem si autour d'une table nañ toog ci table ji waxtaan mhm. je le plus fort tey le plus fort nañ les nañ bàyyi la population d'arbitrer même man bu ñu année problème de troisième mandat quatrième mandat cinquième mandat là moi pour moi l'opposition là si moi je me dis que quand même euh, nañ le plus fort amul problème c'est la population quel que soit bu nekk yaay dugg ci urne bi jël sa carte instant boobu kenn mënul forcer kenn laissons à la population de juger et de prendre ses responsabilités mais itam dañuy gis ni comme gars yi ñu ne bataaxal boo ko dugalee pour manifester ab bataaxal ak yëgle rek la waaye dañuy gis ni la fekk ñu koy aaye moom mooy indi problème bi pëccoxoo yu bari yi. mais nous sommes dans un état où il y a quand même un encadrement juridique tey dañ ne la au delà à partir du 10 juin jusqu'au 10 kii manifestation politique ak yooyu mënul am mais il faut qu'on respecte ça aussi c'est dans la constitution c'est dans le processus électoral. mais mënuñ permettre ça manifestation ça aussi c' est des trucs man pour man man yooyu amul sens je suis le plus fort nañ dem si terrain bi rek. léegi ñoom ñi nga xam ni woote nañu waat itam ginnaaw seen concert casserole bi woote nañ euh, le 29 itam. ak ndaje casserole moom nit mënu ci dëkk. ñoom yow miy tëgg sax yow yaay gën a sonn te du loolu mooy mooy régler problème concert casserole moom je pense que enfant en général pour man quoi <laughs> voilà parce que yow miy tëgg sax yow yaa njëkk yow yaa njëkk sonn et loolu du solution chacun a le droit maintenant de manifester de la manière dont il voit les choses sa façon mais je pense que loolu yëpp du solution solution bi mooy calmer les ardeurs ñoo xam ne fii ku fi war a falu di nga war a falu ku fi war a falu doo war a falu rek ñi nag ci kaso bi ñi jàpp ci kaso bi ñu xam ne bon nañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër maintenant ce que le marabout a dit loolu moom c'est des choses yoo xam ne c'est inadmissible parce que nit aussi bu nekkul ci dëgg. kilifa da ngay wax waxu kilifa. kilifa doo wax waxu ñàkk kese kilifa doo wax waxu saaga xale yi ñu ngi lay seet dañoo war a nekk ay roy roywaay pour man un politicien du war lu nekk n'importe qui da nga war a nekk un modèle boo xam ne ni xale yi dañ war a sawanne nuy wax naan maay Ronaldo maay Messi maay diw maay diw aussi si le plan politique loolu dafa am ay fondamentaux mm-hmm. mooy joxe yar am teggin am sutura mais nekkul ne lu la neex aussi nga taxaw wax bu ñu lay jàppee ñu naan a démocratie la démocratie aussi c'est pas la pagaille <laughs> monsieur le en tout cas ñun am nañ mbégte lool tey dalal la ci émission gox bi daal di waxtaanee li nga xam ne moom moo jëm ci commune bu xel Xelcom Birame li nga fi jot a wax nag am na solo waaye itam xam naa ni yoon yom ci benn daañu dem ci dëkk ba itam euh, nga dalal ñu fa en tout cas ñun am nañ mbégte lool euh, dalal la tey ci émission gox bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk auditeurs yi. ben sant yàlla ñaan seen rajo bi yàlla na jël gëm kanam fu ngeen ko bëgg a yóbbu ngeen yóbbu ko fa. donc ça a été un plaisir de partager et puis lépp lu mu wax c'est des yoo xam ne c'est du fond du cœur moi je suis pas un triche li ma gëm laay wax ko donc je pense que on est la commune donc euh, li ñu gëm mooy nit ñi yaakaar moo tax ñu teg fa war nañ mën a def boobu parce que dama ko wax les fondamentaux pour réussir sa mission de maire ou bien sa mission d'homme politique mooy être accessible mm-hmm. être disponible être utile loolu ku ko def kenn du la xarab liñ am nga bàyyi koog ñoom li nga am nga bokk kook ñoom je pense que soo ko defee di nga mën a sa politique dina mun yomb je suis le seul maire boo xam ne nii bëgg euh, baatuma campagne te gañewaat na waaw donc kon di leen di sant rek comme ni ma ko waxee di ñaan yàlla réew mi ñun ñoo ko bokk ñu nekk pouvoir ñu nekk opposition yëpp dañu xam ne réew mi ñu ñoo ko bokk mënuñ ko xaajoo ku nekk sa sénégalité yaa ko yore sa bopp yaa ko war a sàmm mm-hmm. joxe cër li nga bëggul ñu def la bu ko def kenn bu ko defee ñu bàyyi nag peuple bi arbitré uh-huh. man loolu laa gisee et que le meilleur gagne cas merci beaucoup monsieur le maire ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm gërëm Léopold Mendy itam moom mi nekkoon ci xarale gi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM